maa ngi tudd Abdoulaye Siga Diouf man may jëkkëru Mati euh Mati man ak mom bañu commencé suñu ya yagna yalla mana dimbali man ak mu nek jigen ju brave ju jambar yaay sama tanki tay tanku choono coono dong la ak nakal yaay umple woni lay mi ban mako may ba tay université ba mu doon dem di ko jàng fa bàyyi na fa yaay bëgg yor jabar bëgg yor doom dafa metti yaay si ko liggéeyul ba tax na yéen mu diis bi nga xam ne man maa ko yéenoon laay yaay dama ko koy yéen yéemal ak sëy bi yaay bàyyi sa sëy xam ñuy def may ma waxtaan ak sama njëgënaay te soo demee nga ne laay si kanam su génn naa fa jaar. baax na maa nag nekk nit koo xam ne nii jàppale na ma guddi jàppale ma bëccëg tànqaluwuma ci dara. idée bi mu ñëwee ci man dañ ko koo mayoon mu nekk xale bu ndaw moom tam mu nekk xale ñoom ñaar fekk liggéeyut léegi nag ñàkk liggéey boobu ma xam liggéey jafe na ma xalaatal ko daal. wax ma wax ju doy waar wax ju yéeme sax moo taxoon ma ne naa fi ñoo ñu waxtaan ndax yàlla ya suñu borom mooy tege nattu yéen a ngi dëkk ci côté marché bi ñin ñi di dem ak di dikk pourquoi pas ngeen ubbi benn restaurant ah wah incha allah dégg nañu incha allah nañ ko jéem daal ba soobee eh, yàlla tamit lu si am lépp ñu teg ko ci loxol yàlla incha allah. wax ko ñaar yoon mu xaw a kii daal ne sama jabar du jaay restaurant far yàlla def na mu mujj nangu li may wax. dafa bàyyi école teg bagage yu école yi rek daal di ñëw li damay ubbi restaurant ñu ne non non non lii c'est pas possible un jeune ne peut pas faire restaurant bi nag maa ngi ko tuddee sama maam Siga moo tax mu tuddee ko Yaa Siga turu matelaay bi. nit ñi mënatuñu wax Mati Dieye mu ngi tudd Mati Laay Mati Laay Siga la ñuy wax may ubbi restaurant bi jotoon ci conseil yaayam mais apport suma tànt boo xam ne nii moo ma yar mënu ma ko tudd te jooyu ko ndey Kumba Tine la tudd waa classe guy dëbb. parce que su ma takkoon sama caméra sëgg di di ko jàppale ci togg wala ma sëgg di togg man moom xeej na sax daan na xaw am lu mu ci làq mbaalu mi nëbb mais man je le faisais sans complexe. que bu njëkk dañ daan am complexe dañ daan xulloo man ak samay xarit suma suma su sax ne sama papa dafa demoon marché affaire yooyu dañ may reetaan mais tey jii bu ñu gisee lii man am naa loo xam ne ñoom amuñu ko. suma daan dem école sax j'avais des problèmes de transport te yàlla dimbali na ma chez ma voiture dama amoon problème mu tëdd wala ma am fu may nekk j'ai ma maison aujourd'hui c'était très difficile. toggal ma marché d'accord mais soxna si bul jaaxle euh, maa ngi nii jëmoon seera sax pour jëli commande ndawal bi waa léegi xale yi gannaaw jàng wuñ da leen di woo ñoo jàppale ci liggéey bi ndax mu gaaw ok. donte dañuy jàng mais suñu wàccee dañuy ñëw ci restaurant bi jàppale suñu papa jàppale suñu yaay.

maa ngi koy sant bu baax a baax a baax yàlla dolli ko wér defal ko lépp lu mu njort ci àdduna yàlla defal ko ko parce que gërëm naa ko trop trop trop sant